Cine Info dikkati naa ab njombe bu ñu nar a jàppem siiw day moo nar am ci réewum Sénégal turbine yéene kaay ne ma accident ba am Kaffrine tax na ci moment daal ñu fàtte sàcc yi nga xam ne ñoo nekk ci république bi yéene kaay des médias bi leen rapport cour des comptes bi daal dina fiy jàpp ay kilifa ni leen nii ñuy sàcc alalu askan wi gaa yi nag di fàtte fàtte lu mbir mi mel ni ku concentré wu ci coowal accident bi metti na turbine yéene kaay ne ma moo tax askan wi seen xol ak seen jëmm yóbbu ko Kaffrine turbine ne ma gi profité ci di def la ko saf moom président Macky Sall moom ma ngi cay libéré ay détenus yoo xam ne nii politique dong moo taxoon mu jàpp leen ci Papa Alé Niang les Échos yéene kaay ma Papa Alé Niang moo mee ki démb na liberté provisoire waaye nag Papa Alé Niang dañ koy teree wax ci coow li muy ci public ak ci privé jël nañ passeport te dañ koy teree tukki tribune yéene kaay ma waaye yoon ci boppam daf caa profitoo daal di sàllar bi ku naan duma wodd duma topp kenn laas yéene kaay ko déet déet rapport cour des comptes bi nag jébbal nañ ko procureur mu jëm nag ci gestion fonds covid 19 bi bés bi le jour ne ma coow laa ngay démarré rapport cour des moom ministre de la justice daal dinay saisir procureur fukk ak ñaar ci doomu aadama yoo xam ne takkee nañ ñu daal di leen di wiise nag fas leen yéenee topp ni ko cour des comptes bëggee am na cëb ministre boo xam ne day làmbaay ma ngay ñaaw ci moom bés bi le jour na ña ngi koy toppee lu doy waar moom représentant bu FMI di rafet rafetlu lool Sénégal dogal yi nga xam ne jël na ko suñ ko di jeene ma waaye sàll ngaari lam tooro bur géte dafa mën a raxas waayam mën a setal waayam bari na ci rapport yoo xam ne jàll na fi ay recommandation yoo xam ni jot na ko moom président président waaye saa nekk daf leen di raxas ba nu set wecc Walf Quotidien ne ma en tout cas FMI moom ma ngay xaar suite ba nga xam ne ña ngi koy jox rapport Cour des comptes bi représentant résident bu FMI moo ko daal di xamle bés bi na ña ngi leen di topp de ndax saa si tembe moom procureur jot na seen i dossier Walf Quotidien ne ma FMI it ma ngay wax ci subvention bi nga xam ne ñi ngi koy def ci wàllu énergie Sud Quotidien ne ma nguur gi day daal dina yokk pa bi fas yéene yokk guuta Momad Cissé vice président bu ASCOSEN ci yéene bi naan dem ak dikk askan wi daan ci am jafe marchandise dem ak dikki daan ci am ay jafe-jafe le temps mooy yéene kaay ne ma sar xool la dëgg-dëgg moo am de diggante président Macky Sall na ak syndicaliste yi ndax FMI moo weñ loxol gouvernement ba mu yokk njëgal essence ñoom syndicaliste yi naan daan nuñ ñu dégg te du yàgg ndax lii duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg vox populi ne ma beneen coow accident bi mujjee am te ñeen fukki bakkan daal di cay faatu source aane ma tegal foofu sa loxo mat na ñeen fukk ka ca mujjee faatu Mohamed Touré la tudd fanweeri at ak juróom ñaar la am nekkoon ab gardien ca collège Lamine Niass vox populi ne ma accident bu metti boobee tax na chauffeur si rabatteur importateur pneu saa si tembe nag ña nga fas yéene jàmmaarloo ak góor na gouvernement defante ak moom nee ñu horaire yi nga xam ne guddi la góor na gouvernement gi ne moom lay daw du am tey du am ëllëg la nga xam ne it moom moo di ay tere yu bëri yu maa gi daan ci xeex ak moom Moustapha Ndiaye bu syndicat transport bi naan koon bagage yi moomu ñu ko client yee ko moom bu ngeen leen teree bagage fu ñuy dugal seeni valise góor xuma woto yëpp mun ñoo defee visite technique fii ci Ndakaaru mënta ne te naan dañuy nangoo gum dogal yi de waaye diis lool ci kaw chauffeur si jaaykatu pneu occasion yi ne ma yéen seen tere gi du mujjee fenn ndax mënta ne coow li coow li bugaan ci 24 heures yéene kaay naan ana goro national moom Mansour Faye ci boppam dañ koo war a dàq ndax na géy ma nga naan la fi jëlee Abdoulaye Diouf Sarr ak ñeneen waru fee bàyyi Mansour te naan kon la nga xam ni moo fi indee salfaañoo ci transport yi du kenn kudul Mansour Faye mi nga xam ni sab goro jël ngeen i mesure waaye da ngeen leen war a planifier xool ni ngeen koy lalee xoolit ni ngeen di waxtaanee ak ña nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi ngir jàmm am le mandat yéene Mansour Faye la bëgg mu able nee na goro national li waru ko fee bàyyi yéen kaay bi samp laaj ndax demuk Mansour boobee ab solution la moom critique yéen kaay samp laaj de ndax moom Mansour fay war naa nekk béyub sarax bi ndax nag accident war naa am ay nit faatu ca gaa yi ne Mansour ci boppam dafa war a able critique yéen kaay ne ma mbaa duñ ko jal bi jalaa ñoo ñebe te Mansour ca dëgg-dëgg yoonam nekku ca bugaan ngay dani ci 24 heures yéen kaay ne déet mooy ministre des transports bu jëloon dogal yi nga xam ni moom moo ci war lii du am Mansour na able le quotidien le quotidien ne ma am na zone yoo xam ne fii ci réewum Sénégal ku faatu ci accident ñoo la faat jàppal croisement Mariama Niass fii ci Ndakaaru entrée bu bari ñi ak sa kër Martin Tataguine janna malaari jarume Sinthiou Malem ak Kousanaar ci le Boubacar ak yeneen ak yeneen ndax nag taliya ci boppam ñoo baaxul rax ci dolli woto ya fay daw daal di màgget lool l'enquête quotidien ne en tout cas jël nañuy mesure waaye nag daal di koy appliquer dina doon coow l'observateur ne foofooy danger bi de mesure yi nga xam ni jël nañ ko ndax nag boo moytul ci choc beneen la ñu jëm muy diggante góor na gouvernement transporteurs yi Mansour Faye ci biir yéene kaay bi naan confrontation du am ndax saa si tembe nangu rek boobu sàll ngaari lam tooro buur géde day ma nga ca waxub ñetteel bi mandat ci biir l'indépendant yéene kaay société civile bu Sénégal di woo Union européenne naan leen wax leen ci président Macky Sall mii mu gàntal ko teg suuf lu ko mooy moom président Macky Sall day taal réewum Sénégal tribune yéene kaay ne ma coow li coow li ma nga ca Ismaïla Madior Fall moom Ismaïla Madior Fall ci boppam nee na ñaari million carte buñ ko jaayee moom président Macky Sall mën a amaat mbaay la yow Ismaïla da nga jógee ci ministre daal di bàbbeeku ci politicien bu far direct news daal di dama coowal troisième mandat bi dama nga yàq rek diggante Amadou Ba ak président Macky Sall mbaa ko ca Tamba protocole ba président respecté wu ko keroog ci conseil des ministres bu mujjee danoo janoo ca du protocole mbaadu lii nag day wane ne diggante Amadou ak président neexatul ba muy jóge Tamba moom président Macky Sall Ba dalalu ko bañ ko laajee ci ñetteel bi mandat moom Amadou Ba dafa ne loolu affaire président Macky Sall la Farba Ngom naan leen wax day leer président Macky mooy sunu candidat Amadou Ba naan leen man daal fu président Macky Sall nekk laa nekk ci coowal Cour des comptes yi moom Amadou Ba defa ni woon du ca taxee du ca wax xam le ni woon ay jëwrin dañ ca taxee dal di leen di cité moom président Macky Sall naan kon étudier ko loolooy wax ca coow li tax na ba direct news samp laaj ndax président Macky Sall digganteem ak Amadou Ba ma ngay neex ba tey l'indépendant yéen a kaay ne ma en tout cas ci accident bi ña nga xam ne ñoo ca gaañu am benn million ñebootu ñi faatule daal am ñaari million booba l'exclusive ma mon pays mon avenir moom ma ngay xoolal askan wi ne seen dund ñoŋee Ibrahima soxo njiit la gannaaw ba nu taxawalee ay centre ya ñuy jàngee téeméer ak ñaar fukk ak juróom ciy daara ñu dugal leen ci seemi ñetti téeméer ak juróom benn fukk ci soxna ñu tàggat leen financé leen ci tànkuk na gën a taxawal mouvement ba la ñu ne dugal seen loxo ci tàggatu gi waaye itam insertion ndaw yi coow li coow li 24 heures yéen kaay ne faaw ñu wutal ndaw yi solution de ndax ci àdduna wërngal këpp ñeenti seconde yu weesu yu ne benn xale faatu na ci àdduna wërngal këpp ci àdduna bi ci 2021 bi ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm yendoog jàmm